والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk jullit yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi azza wa jal di moytandikuloo sunu bopp di leen moytandikuloo bëtt ay tereem di jëmale suñu xutbab tey bokk yi ci benn tomb mooy bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonente bi warteef la ci bépp jullit waaye sax ci bépp mbindéef ndax yërmaane la ñeel mbindéef yépp mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam luy nekk ci jëmm wala luy nekk ci mbir ba tax ñu di ko sopp ak ko bëgg ak di ko bëgg loolee lépp dafa daje ci jëmmam gi sallallahu alayhi wa nit danañ ko bëgg ngir ab taara ngir ak rafetaayam waaye nit danañ ko bëgg ngir ay jikkoom yu rafet danañ ko bëgg ngir ak tabeem danañ ko bëgg ngir ak njàmbaaram ngir yërmaandeem ngir cofeel gu mu am ci yow wala jege gu mu la jege ni ki bëgg gi ñuy bëgg ñaari way waaye danañ ko bëgg ngir dafa laa jàngal danañ ko bëgg ngir dafa doon sa kilifa yooyu yëpp nga xam ne nag day xirtal nit ci mu bëgg nit dafa daje ci jëmmam yonente bi moom jëmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbindeef mu ne nga xam ko ak nga koo xam yonente bi sallallahu alayhi wa am na ngëneel ci sa kaw bi maanaa am na lum la defal loo xam ne yay na nga bëgg ko yay na nga topp ko yay na nga gërëm ko ndax loo am ci ak mbaax loo am ci xam-xam mooy ki nga xam ne moo la ko jàngal moom yërmaande la goo xam ne yàlla na ko fab may ko mi def yi ana rahmatul muhda ana rahmatul muhda yërmaande la laa joo xam ne yàlla dama fab jox ma mbindéef yi moo tax mu ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin kon lu dul yàlla borom bi azza wa jalla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ngëneel ji sa kaw joo xam ne dafa na la njëkk ak teraanga joo xam ne yey na nga sopp ko ba doo ko yemale ak lenn waaye yey na tamit nga topp ko moo tax boroom xam-xam yi di wax ne bëgg ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon ponk bu dëgër a dëgër ci ponk ngëm yàlla seydina umar bnu alxataab radiallahu anhu ñëwee yonente bi ko yow yaa ma gënal lépp lu dul sama bakkan bii mu ne ko kon de yow umar sa ngëm des na bi Seydina Umar déggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne la yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain kenn ci yéen ak ngëmam yàlla du mat mbatee dama ko gënal doomam gënal ko ay way juram gënal ko bakkanam gënal ko nit ñépp mu ne ko nag anta ahabu ilaya min kulli cheyin ya rasul allah yaa ma gënal kon lépp lu dul yow yow yonente bi mu ne ko nag yaa ngi doog a ñëw sa ngëm yàlla mi ngi doo a mat kon loolu ci la boroom xam-xam yi sukkandikoo ci ne bëgg ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ponk la bu dëgër dëgër ci ponk li ponk limaan euh, dafa munta ñàkk ci ab jullit mu bëgg ko ndax sa bëgg yàlla bala moo mën a wér da ko koo topp ca sa topp ko bala moo mën a wér tamit da nga xam ba bëgg ko te soo ko xamee da ko bëgg mbooleem lu nit di bëgg mbooleem lu ab xol di aju mbooleem lu bakkan di xemmeem yàlla dafa boole lépp teg ko ci benn balance jël bëgg ko moom yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci beneen balance jullit bi war a euh, notal bëgg yàlla akub yonenteem ci xolam ci bëgg yeneen yi nga xam ne bakkan da koy bëgg wala xol di ci aju wala mu di ko xemmeem borom bi moo wax na su fekkee ne seeni bay seeni baay yi leen jur ak seeni doom yi ngeen jur yéen ak seeni mbokk yi ngeen bokkal ndey ak baay ak seeni soxna ak giir yi ngeen bokk famille bi ngeen bokk ak alal ji nga xam ne dangeen ko fàggu ba mu lew muy ay milliards i ak marchandise mi nga xam ne dangeen ngeen ko jënd yaakaar mu jar ragal mu lamb ak kër yi nga xam ne dangeen ngeen koo liggéey ba mu mel na mu war a mel ngeen dëkk ca su fekkee ne yooyu yépp moo leen gënal yàlla ko yonenteem ak jihaad ci aw yoonam xaar leen waaye ma ñëw ak sama mbugal xaar leen waaye ma ñëw ak sama yar fa tarabbasu xatta yatiya allahu bi amri inna allaha la yahdi alqawma alfasiqin kon mbooleem di xol di aju mboolem di lu bakkan di xemeem loo mboolem lu ñuy bëgg ca mooy ay soxna ak i doom ak alal ak i kër yàlla jël na yooyu yëpp teg ko ci balance jël bëgg ko moom yàlla ak yonenteem teg ko ci balance ne jullit bi kat bëgg yàllaa ko yonenteem moo war a gënal ci mboole mi ci des kon bëgg ko moom sallallahu alayhi wa sallam warteef la ci bépp jullit bëgg ko daf lay yóbbu nga bëgg yàlla ak jege yàlla te ku bëgg yàlla ak ab yonenteem bu ëllëgee nga nekk ak ñoom aljanna benn arabi boo xam ne dafa bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu tar lool mu ragal na ëllëg doonte dafa taxe dem aljana tax fa muy nekk ci aljana dana sore ak fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ba loolu ko ak jaaxle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al maru rafiqu man yuhibbu fi l axira nit ku nekk kam bëggoon ci su ëllëgee yowmal qiyaam bokk fu ñu nekk jenn waay laaj na ko ne ko bis ci kañ la mu ne ko loo ko waajale mu ne ko waajale ko dara de waaye nag bëgg naa yàlla ko yonenteem mu ne ko anta maa man ahbat yow bu ëllëgee da ngay ànd ak ñi ki nga xam ne moom nga sopp anas nee na kero saxaaba yi bégg nañ mbégte moo xam ne mosuñu ko bégg ci wax jooju moo xam ne anta man maa man daa di wax ne man de bëgg naa yàlla ko yonenteem bëgg naa Seydina Aboubacar bëgg naa Seydina Omar doonte fa ñu àgg ci ak ngëm yàlla ak ci jëf mun ma faa egg waaye bëgg naa leen ca maa ngi jot lool ak a yaakaar ëllëg su boroom yéegal ma foofee ñu nekk kon bëgg leen bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana tax li nga xam ne tële nga ko ci àddina ci ay jëf su ëllëgee sunu boroom jóg ci sa bëgg googee ba yéegal la ci darajaay saxaaba ya yéegal la ci ajjana yu kawe ya xaju nag moo ki saxaabaam yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu ca bëgg ko tamit mooy dayo dëgg dëggi ngëm yàlla ci la jullit bi di mën a yége caf ka yàlla euh, comme ni ko yonente ñett ngi yoo xam ne ku ci nekk dana yëg caf ka ngëm yàlla ca moo yàllaa ko yonenteem gën a gën la dul ñoom ngay bëgg nit ki ca bëggoo ko lu dul yàlla bañ a delluwaat ci ak ceddo ci ak kéefër ñi nga sibeku la jël sànni la ci biir sawara mbokk yi ginnaaw xam nañ bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doone lu war ak li nga xam ne moom la lay jural ca moo yàlla bëgg la ëllëg ñu yéegal la ci fa mu nekk euh, ana lan mooy firndeel nag bëgg ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko de la koy firndeel mooy nga topp ko taatuhu wal iqtidaau bihi wala nga ne taatuhu wa mutaabaatuhu topp ko mooy yoon wi mu rëdd jaar fi di ci jaamu boroomam nga jaar ci yoon woowee la mu bëgg ci ay jëf ak i wax ak i melo nga bëgg loolee la mu sax ci ay jëf ak i melo nga sax ci loolee mutaabaatuhu nag mooy nga defe ko na nga xamante ne bii noonu la ko doon defe waaye tamit li mu indi muy diine ji gënal la lu noom bépp xalaat ak ku ko mën a wax ak lu mu mën doon lu mu rafet rafet ak lu mu xew xew na la ko li mu jàngale gënal fuuf bu leen dendale mukk waaye tamit dimbale diineem ji ndax bi mu fiy jógee joxe na benn message boo xam ne jullit ñépp la ñeel balligu anni walaw aaya boroom xam-xam yi ne balligu loolu taklif la goo xam ne da koo togg xeet wépp an ni tashrif la ndax dara dara gën nga nekk ndawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yónni la koy jottileel dara ci diineem ci walaw aaya taxfiif la mooy bul xeeb li nga man li nga xam lu mu néew néew na xam la ngir yàlla kon bokk na ci lay firndeel bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nusratu diinihi waaye tamit ñi nga xam ne ñoom la jàppe ay bokk ñoom la jàpp ay farandoo muy jullit ñi ak ahlu bayteem ak saxaabaam yi ak ñi sax ci diineem ji ñooñu tamit nga jàppaleen ay bokk jàppaleen ay farandoo waaye tamit nga wekk ko màggal ko waxtu wu ñuy tudd ak turam bokkul ci ay tegginu jullit mu dégg muy dégg turu yonente bi sallallahu alayhi wa ca julliwul ci moom nee ki gën nay ci yéen mooy koo xam ne dégg nañu tudd sama tur te julliwul ci man waaye tamit waxtu woo yàlla dimbali la ba nga dem ca xabroom ba di ko siyaare nga wekk ko lool màggal ko lool watandiku lool mel ne mi ngi dund mi ngi lay gis wegeel danga xam ne moom nga doon làmboo ak màggeel ga nga la nga nga nga sàmmonteeg moom ci joxtu woowu wala nga sax dugg ca jàkkaam ja bu fa def lenn wala nga fa wax lenn loo xamante ne bii dëppoowut ak i teggin ak maqaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit bari loo koy tudd lool ndax nit ki su bëggee dara faw loolee day nekk ci xel mi waxtu bu nekk da koy tudd bal sax bu tëddee moom lay gént moo tax sëñ Tuubaa radiyallahu anhu bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa mu wax ne bëgg ko fàtteloo na ma ay kër fàtteloo na ma ay doom fàtteloo na ma alal fàtteloo na ma lépp wax ne samab lex moom lay lalal sallallahu alayhi wa ab tànkam mu di ci jaar walif dëkk wala jiitu wala jaan di ko mat euh, dawul nangu kenn askan askan la ko ci lenn lu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa jenn waaye mas na koo indil gura mu laaj ko loo ci jublu mu ne damaa dégg ne dangaa bëgg gura mu ne ko nañ ko génnee sànni ca àll ba daal di digal kër gi lu fi nekk ci gura ñu génne ko sànni daal na man kenn duma askan lu dul bëgg yàlla ko yonenteem mbokk yi noonu lu ab jullit war a mel yal nañu yàlla dimbale ba ñu mel noonu waaye tamit bokk na ci màndargay bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bari looy julli ci moom bal sopp ko sax ba namm ko ba mu lay jural jooy saxaaba yi noonu lañ meloon ginnaaw ba fi yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu gisee lu bokk ci moom wala ñu dégg loo xam ne ci ay jamono lañ ko daan dégg dañuy jooy ngir namm ko Seydina Bilaal bi nga xam ne jóge na Madina gàddaay dem ci réewu Shaam yi benn bis julli jot mu ka muy nodd noddam ko kera ba mu ko yëkkatee mboolem jullit bu ko dégg na da ngaa jooy ngir fàttaliku sallallahu alayhi wa sallam ba mu daan nekk ca jàkka ja Seydina Bilal di nodd mook saxaabam yu tedd ya yàlla nañu yàlla defal ak cofeelam ak cofeel ci yonent bi sallallahu wa sallam ak ahlu bayteem tamit defal ñu cofeelu képp koo xam ne nit ko baax la ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee mu fag ñu boole ñu ak ñoom yàlla nañu yàlla def ay jullit te def ñu ay jullit yoo xam ne dañoo tënku ci sunnatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na def ay jaam yu mu xettal ci ñu ko te mu nangu leen seenu jaamu te xaru leen aljanna wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin